بسم الله الرحمن الرحيم هذه قصيدة تمدح القرآن الكريم ريك خادم بالفتح مكوت دنيا للبور يالا جوخت موي قرآني بوكو بوليك لنين دجم بغنغا أم رحمة الله مانغا أم رضواني limu mu di leer gu mat dana niital képp koo xam ni moom nga def ilimaani li ko may doole jox ko leer gi mu àndal tax mu lottal kuy jinde mbaa insaani moo di lim bàyyi koo ci yàlla te wàccul ànd ak manki njub la day santaani suñu koy jàng waaja xam la mu lamboo xol ba day tiit te ànd ak ashjaani képp koo xam ne daa xamul la mu mën na koo dégg boole koog waxtaani waaye ab jaam bu xam boroomam ba àggal xam ne mooy yàlla xam ne mooy raxmaani ab xolam xam boroom bi xam la mu làmboo lépp doon ay ajaayiban kimtaani mënta xam alquran ba noppi di xoolaat am kemam ndaxte loola mooy caaxaani ba mu wàccee ba tey amul kenn koy wax benn muy ndit ku sob di jaay seytaani dafa lottal bindeefi kenn mënu cee wax lu ni mel mu kufaat na koy insaani dafa lottal ca aayaak saaree cay rot na mu riimoo ta àndandoo day daani ku ca wut ndox sa ndox ma sell na naanal ku ca mos tuuti dootu laaj fu mu naani akama bëgg waaja def ko imaamam di ko niitoo fi sirri wal ilaani akama bëgg waaja def ko limaamam di ko niitoo fi sirri nga jug gaaw képp kuñ woo ci alquran na nga gaaw ñëw soo bëggee am maalim alqur'aani téere boo xam ne aw xaraf wu ca nit wax fukk lay am tiyaaba bil ihsaani téere boo xam ne mooy sa eskale ëllëg waaja koy jàng raw na fil aqraani Mau fay ram ay ñoñam bala ñooti daaxilal xamri nonu wasta dinani, akama bëgg waaja tok di ko jàngal nit ña muy leer gu mag fil awtani ku ca mos tuuti mos ngalal ku ko xas mos mëna to mos lu dul lu lay ku ca mos mos ngalal ku ko xas mos mëna to mos lu neex na cib xol te neex ci nopp te sooful soo ko dee jàng day wéral liimaani yal na buur def ko muy lan rammu tamteel def ko ak leer mu dàq sun shaytaani wa salaatun ala nabiyi almuqafa wa kadal aali téere bee